أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ci suratu nisa ñu jël tey ñaari aaya aaya wala benn aaya muy aaya 83 benn aaya bi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala moo ngi ñu ciy jàngal taqrir di saxal mabda an axbaarul xarbi la tuzaa liñ leen di wax ne alquran téere formation la téere la buy former ay nit di leen defar di leen baaxal di leen xamal fu nuy teg seeni tànk di leen xamal lu nu war a gëm ak lan lan war a def lu ñu war a jëf lu ñu war a wax wala lu ñu war a ba tey bokk na ci li ñuy jàng mooy yàlla daf ñuy jàngal ne xabaaru xeex kenn du ko wesaare su fekkente ne nun dañu nekk ak sunuy noon di waaj sunuy wàccaay wala di denc sunuy arme wala di ut doole wala ngànnaay bi ñu yor wala fi nu war a wàcc wala ñaata nit lañ loolu lem mbokk yi dañ koo war a nëbb dañ koo war a nëbb dañ ko war a denc kenn waru koo siiwal kenn waru koo wax loolu nu yàlla di jàngal tey mooy xabaar boo xam ne xabaaru xeex la xabaaru xare la borom bi dafa sàkk ci ñun nëbb ko ban koo siiwal illa min qibal al qiyaada al ulya lu dul nag siiw gi jóge ci sommet ba ci teg yi ci cadre yi ci kaw nga xam ne ñoo jiite xare bi ñoo jiite mbir mi ñooñu buñ ko siiwalee kon warees na koo siiwal ñooñu suñ ko waxee kon warees na koo wax mu ne watadaadi fi l alfaazi walmaani xatta la yaqa'u al itirab lan moo tax lan moo tax xare xabaar kenn waru koo siiwal ci xare xabaar yi jullit ñi yàlla di sàkku ne xabaar yi jullit yi bu ko kenn siiwal lu dul bu waree siiw na ko ñi kilifa yu mag yi siiwal balaa balaa tremble di am ci jullit yi yeneen jóg leen yéen ñëpp fële ci ginnaaw jóg leen jógal kër seeni cere ba pare ñëw ci biir ñu woor di leen indi lay problème yéen xanaa ay séeréer ngeen kër seeni mbuusu cere wooru leen ba pare ñëw ci sunu biir fii di ñu sonal waaye yow waaye du leen ngeen toog fee waay kon li yàlla di jàngal mooy xabaar bu jëm ci xeex bu jëm ci mbirum sécurité ko kenn siiwal mais di ngay gis tey jullit yi ndeysaan amuñu secret lépp lañ génn ci biti bëm moo tax noonu yi yëpp leen xam leen xabaaru xare kenn waru ko siiwal yàlla daf ko sàkku ci ñun nan ko denc lu dul mu jóge ci kaw ndax bu nu bu xabaar yi gaawee tasaaroo li muy jur mooy mbooloo mi dañuy tiit dëkk bi dañuy tiit moo tax yàlla subhanahu wa taala yar jullit yi gis nga démb ba jullit ñi xam li ñu war a siiwal ak lu ñu warta siiwal lu ñu war a denc ak lu ñu warta denc ak même bu fekkee day siiwal tamit ñan ñoo ko war a siiwal ndax ñooñu bu ñu taxawee di wax waaw ñi ñuy waxal danañ xam ne ñii kat bala ñuy wax lii jël nañ seen matukaay ba pare ndeke dana njàng ne alxuraan mbokk yi ndeke gis nga ñun ñu ko def téere barkeelu def ko téere gàllaaj def ko téere musluwaay lii moo koy dajj lii moo leen di wane téere bi téere dundin la téere bi téere dundin la téere boo xam ne ñëwul rek pour nii barkeelu mais dafa ñëw pour defar suñu dund pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk xam lu ñuy def xam lu ñuy wax xam ñan la ñuy jëflanteel xam li ñu war a siiwal li ñu war a denc loolu mooy lu njëkk lu ñu war a jàng kenn warul siiwal xabaar lu dul ña ko war a siiwal balaa mbooloo mi tiit fi sufuufil mujahidin wal umma kazalika soldaar yi nga xam ne ñoo war a xeexi tey buñ leen tiitalee ne leen yét la ilaha illallah yéen de tey ngeen dee xanaa xam leen ñi ngeen di xareel soldaar yi ni ñuy def dañuy tiit dootuñu am pas-pas dootuñu am kóolute ndax ragal noonu lañ leen xamal nañ leen ne ñi ngeen di xeexal ñoo leen ëpp mbooloo ñoo leen ëpp arme ñoo leen ñoo leen ñoo leen ñoo leen su ko defee ñii xeexi dootuñu sawar ndax dañuy xam ne dañ leen di rey dañuy xam ne ña ñuy dajal ñoo leen mën loolu kenn du ko def moo tax yàlla di sàkku ci ñun ñuy denc yenn xabaar yi loolu nag nekkul ci xeex kese mbokk yi même ci sunu biir kër yi même ci biir famille yi même ci biir dëkk bi am na loo xam ne xabaar yoo xam ne kenn waru ko wax ñu ko war a denc même ci biir kër gi diggante jëkkër ak jabar diggante ndey ak doom ak i nangam nangam am na yoo xam ne kenn waru ko wax diggante jëkkër ak jabar am na yoo xam ne xale yi waruñu ko xam même fi ngay liggéeyee am na xabaar yoo xam ne waroo ko faa génne di ko yóbbu jëbiti tey ay mbir yu bëri mu ngi am ci société bi la tax moo am mooy xabaar ya ñu génne foofu yóbbu ko loolu moo indi problème te xabaar yu ñu war a denc saa yi ñu ko génnee rek problème dana am bépp xabaar bu ñu war a denc suñ ko génnee gis nga même examen bu ñu génnee épreuve yi ci mbedd bu ñu génnee question yi ci mbedd yi lu muy xew wala ñu jaay ko luy xew yëf ya daal di ab pëcc xu am yëf ya daal di yàqu jeex na même lu mu mën a doon lii daf ñu koy jàngal loolu la yàlla bëgg ci ñun ñuy denc ñu nekk ñuy denc ñu am bàmmeelu biir di denc ñaareel mooy aksaru naas yataassaruun bima yasmaun illa qalil min zawil xasaafati al aqliyati wal wayi siyaasi mbokk yi ndax xam ngeen nit ñi ñi ci ëpp ñu déggee xabaar rek xabaar bi day jeexital ci ñoom parce que xam ngeen loolu li ëpp ci nit ñi xabaar yi ñuy dégg dafa am lu muy def ci ñoom looloo tax bu dee xabaar bi du dëgg lan lay def tey ci biir société bi da koy yàq bu dee xabaar bi da leen di tiitloo dëkk bi yëpp ay tiit dëkk bi yëpp dañuy tremble xole biñ ne waa ji am na Ebola mu nga Parcelles Assainies mais loolu loolu gouvernement bi ñoo cuune rek dafa nañ leen alerte am na benn waay bu am Ebola bu jógee Guinée bu ñëw parcelle ñoom dem nañ gis nañ waaj nañ ko nañ ko yóbbu ko rek abandonné ko isolé ko def li ñuy def ci ñoom muy jël télé ministre bi de la santé ñëw ñu wane télé bi wane nit ñi Sénégal bi yëpp commencé patiner ñu ne tata la duggoon la ilaha illa ñu duggoon ci tata bi nañ leen wër mais dëkk bi yëpp tiit mais c'est vrai loolu jaru ko woon xam nañ waa ji fi mu dem dem nañ fa ah jarul wax télé yi même ministre bi bu génnee ci télé bi sax li mu waroon wax ah am na benn waay daal boo xam ne dafa feebaroon ci Guinée te voilà daw jéem a ñëw Sénégal waaye yàlla dimbali nañ jàpp nañ ko alhamdulilah maîtriser nañ ko isolé nañ ko ñu ngi koy traité jeex na. ñu jàpp nit ñi ci kaar la dugg balaa muy yegsi ba mu ñëwee mu dugg Njaga Njaay cey ñu duggoon ci Njaga Njaay ba ñu waa léegi xaw ma ñu duggoon ci tata cey ñu duggoon ci tata ba cey koñ ba parcelle dëkkandoo ya mais nit ñi bu ñu jëm jamono yooyu kenn amul jaamu koo ne nii mu ne la asalaamaaleykum ñëpp tiit koo gis mu ngi daw mbokkam koo gis loolu kenn du ko def ci dëkk dëkk dañuy xam nuñ koy gérer am na xabaar yoo xam ne même buñ koy génnee dafa am nuñ ko war a génnee am na xabaar yoo xam ne nag kenn waru ko génne surtout nag lu jëm ci mbirum sécurité ñuy kenn waru ko génne même bu dee dëgg dañ ko war a nëbb c'est parce que dëkk sécurité moo ko yor bépp dëkk buy siiwal sa sa sa sécurité amoo nekk ko ci jàmm mbirum soldat mbirum arme mbirum xare ay stratégie la kenn du ko feeñal dañ ko war a denc tey aaya yii la ñu war loolu la ñuy jàng yàlla mu ngi nuy wax ci aaya bi mu ne lu bari ci doomu aadama yi xabaar day jeexital ci ñoom xabaar ndeysaan benn waaye dafa feebar yàgg tëdd ñu jële ko dëkk ak dëkk teg ko ci sareet daw ak moom ba jot ci tali bi teg ko ci oto yóbbu ko hôpital bi mu yegsee ñu dugal ko urgence ñu fekk fa docteur bu amul formation docteur bi xool waa ji xool xool xool xool ba ci kanam daan ne kan la àndal waa ji ne maa ngi ni mu ne ko kaay ñaari tànk lañ teg xamul ne malade baa ngi leen di dégg mu ne ko kii nga indi day dee malade bi di ko dégg delloo ko kii day dee gis nga waa ji bala ñu koy tegaat ci oto di ko delloo dëkk bi waa ji kawar gi dafa weex kawaru bopp bi dafa weex taal waa ji dafa tiit ba kawaru weex bi kawar bopp bi daal di weex balaa muy egg kër ga dafa bi jaaw ci benn bis bi waa kër gi tiit ñu ne ko yow lii lan la mu ne dégg naa waa ji li mu wax dégg naa docteur bi mu wax nee na damay dee wala loolu même bu fekkoon ne day dee yenn saa yi nga fekk docteur hôpital fekk da nga feebar du la def dara du la laal du la jox dara mais mun na la faj ci ay seconde parce que day dalal sa xel ah lii de dara même bu dangereux sax même bu fekkee ne feebar bi dee la daf lay jox confiance mais ah waaw defar sa moral mais am na ñoo xam ne uy ñoo ñoo lay yokk boo amee problème Sénégal am na ñoo xam ne ëpp naa seeti de jaru jaru ngay ne ndax da ngay dem yokk loolu nag du nit du yëfu nit loolu du yëfu nit ku baax nit ku baax du def lool nit ku am formation aussi du def lool am na benn waay boo xam ne da doon wax rek weñ daal di dugg ci gémmiñ bi mais waa ji tuuti mu dee waa ji yendoo wàcc ci journée bi ñu foog weñ bi génn dugal loxoom ci biir ah ah wàcc di wàcc di wàcc ba ndox desatul ci biir bi waa ji di kokkoki ñu yéen ko yóbbu ko ci hôpital dafa ñëw rek ñu wax docteur bi kii lan la leen da doon wax daal benn weñ dugg ci gémmiñ gi xam nga yenn saa yi mu am yenn saa yi ngay wax rek benn weñ plongé ne fiw waaye yow dugg wala benn yoo dem naa Kaolack yàgg na léegi war naa am juróomi at may def conférence def conférence ba timis jot ñu tas ñuy timis jot ñuy julli ñu ne mën naa jiiti mais gis nga bi may jàng benn yoon ne ma sarax sama gémmiñ mënatuma wax mënatuma wax carrément dama mënatul wax te maa jiite mënatumaa jàng mënatuma wax allahu akbar ci kaw nit ñi dégg julli gi kay nii laa ko julli di sëgg di sëgg xaw ma gars yi nu jullee sama ginnaaw waaye noonu laa ko jullee man xaw ma nu ko gars yi jullee sama ginnaaw ñu toppoon sama ginnaaw parce que mënatuma woon wax kon waa jooju bi affaire bi duggee ci moom mu yendoo wàcc ba ba loof ngoon gi loof na ñeenu ko yóbbu hôpital bi ñu yegsee am ko expliqué docteur bi ne ko kii dafa war na weñ mais daal affaire bi da xam naa léegi ci xel mi la dem parce que mu ngi wàcc rek ngeen a foog weñ bi génn day dugal baaraam bi ci loxo bi di di di wàcc parce que lu tax waa ji day imaginer weñ ni mu saltee weñ fi muy tag ba pare ma war na weñ non docteur bi na amul problème daa di koy tëral fële commencé xool ko xool xool ba càgg daal di dem ñëwaat daal di indi benn kaas def ci ndox ne ko comprimé bi ma lay jox su soo ko naanee ba pare rek da ngay gëmm nga wàcc ci ci ci ci kaas bi ma la jox xam naa ne sa wër que ne paracétamol sax rek la ko jox mais docteur boobu dafa muus bi mu ko joxee garab gi doom bi kaas bi amoon ndox mu may ko ci tuuti mu naan mu ne ko gëmmal mu gëmm mu ne ko wàcc wàccul ci kaas bi waa ji di di wàccu ndeke docteur bi mu demee di jëli garab gi xaw ma dafa pompe xaw ma nu def mais fexe na ba indaale benn weñ bi waa ji gëmmee rek mu dugal ko ci sa ci ci kaas bi ne waa ji wàccul waa ji ne ah mu ne ko xoolal waa ji xool mu ne ko mu ngi nii waa ji féex waa ji féex normal nor waa ji normal daal di féex xam nga nit nga war a yeewu xam ni ngay xam ni ngay jëflanteeg doomu aadama yi xam ni ngay jaarale xabaar yi Muawiya radiyallahu anhu nee na man du ma mus a am problème ak ay nit mu ne ay nit samay ennemi samay opposant affaire bi du mus a dëgër sama diggante nga ñu ne ko ah Muawiya loolu mooy lan mu ne buum buum gi ñu jàpp ñoom man ma jàpp ci cat bi ñoom ñu jàpp ci cat bi ñoom bu ñu xëccee mu ne man damay yololal buum gi ni muy def ah mu ne ñoom bu ñu xëccee rek ma yolomal ñoom bu ñu yolomalee man ma xëcc waaw nit day muus nit day yeewu am na xabaar yoo xam ne boo dëkkee ci réew kenn du ko tasaare mais gis nga Sénégal politiciens yi amul lu ñuy denc lu ñu xamal réew mi wax ko pour lan pour gouvernement bi échec ñoom ñu mën a toog ëllëg lu ñu xamal ñi jiite danañ ko génn ci biti buum pour lan pour ñooñu bu ñu dem su ko defee réew mi yëpp gaare moo tax duñ dem fenn alxuraan a ngi nii moo ñuy jàngal loolu loolu nekkul leen duñ koy jàngal alxuraan tey ji moo ñu koy jàngal mais xabaar kenn waru koo siiwal rawatina xabaar boo xam ne dafay yëngal réew rawatina xabaar boo xam ne dafay tiital ay nit te li ëpp ci nit ñi buñ jotee xabaar xabaar bi day jeexital ci ñoom imagine ñu jékki-jékki rek daan ne mooy li ñuy def yenn saa yi da ngay gis jékki-jékki Sénégal nga gis ñëpp takk sagar yi xonk ay meer ak i paasa soo ne laa la ñu ne doomu gaynde moo rëcc de xaw ma doomu jinne moo réer doomu jinne réer nga gis ay paasa yu takk sagar yi xonk ah wala meer màtte ay yuux yu yuux yu yu dee yoo xam ne yenn saa yi événement yi bu amee sama saako laa yor saako taxaw ci buntu école bi ku ñëw mën la dugalal fii ku ñëw mën la dugalal fii ba saak bi fees daal ñii di takki buum ñii di takk ay weñ ñii di takk ay lam ñii di takk ay petaaw soo nee lan la ñu ne doomu jinne moo réer waaw doomu jinne dëkk bi nga gis ñëpp takk nga gis kilifa sax gu dem pour sagar yu xonq yu bëri takk takkal jabaram takkal doomam takk loolu mooy ñàkk pas pas dëgg dëgg doomu jinne bu réeree sagar bu xonq mooy tax doo dem am na benn bis ñu xëy rek Sénégal gaa yi jël ay paanu ndox di sotti ci buntu kër yi ñu ne ku nekk na sotti sept paan yéen a ngi koy fàttaliku sept paan ku nekk na nga sotti sept paan gaa yi set paanu ndox xaalis la de ah man dama dugg mbedd suñu mbedd école rek ma gis koñ bi yëpp tooy ma ni lii nag ñu ne sëñ bi moo ne nañ sotti set paan pourtant su sa dëkkandoo ñëwoon ñaan la ñaari paanu ndox nga may ko mu ñëwaat indi ñetteel doo ko may d'accord ngeen wala d'accord leen fi ñu nekk ñun ñu toog fii yëpp ku sa dëkkandoo ñaanoon juróomi paanu ndox doo ko may waaw waaw juróomi paan xanaa mi xanaa kii dafa dof mais fan kii mu naan juróomi paan benn paan laa la mën a may nga jël juróomi paan ndox nga sotti koy suuf wala damaa woote suñu kër direct def tëj leen pompe yi bi ci biir ak bi ci biti école ba bañ leen tëj leen pompe yi bi ci kenn pompe comme ndox mi ci suuf lañ koy këpp ay xërëm lañ gëm ak yu kenn xamul xabaar yooyu kenn waru ko siiwal yenn saa yi ngeen toog ba caag ñu envoyé leen message ci seen portable naan ki doon garde bàmmeelu yonent nee na dangaa war a def xaw ma fukki xulaal ak benn juróom ñaari nangam ndax ki ko bañoon a def message bi ki ko bañoon a def bi mu yegsee ci moom dafa dee yow boo ko bañee de kon da ngay dee bu njëkk ba ci ay këyit lañ ko doon def
ah dagg der sa de.
dama doon njëkk ba xanaa waaw.
jërëjëf jërëjëf da da Yàlla yàlla fay.
fan.
sama jërëjëf da na la yàlla fay jërëjëf Seydou dañu faawoo jox ñu ko benn moo tax démb laa lay waaj a tàgg xaw ma fàtte ko.
bindal ma sa numéro ci këyit ndax ñu jox ko incha allah jazakumullah xeyr barakallahu fiik jërëjëf mbokki jullit yi euh, ci lan lan tolloon mooy loolu di feeñ ci bàmmeelu yonent loolu ñuy wax bu njëkk ba ci ay kayit lañ ko doon def lettre boobu léegi dañ ko publier ci net bi.
waaw léegi au lieu que léegi ñu ñu ñu koy def ay kayit ci internet bi lañ ko dugal man lettre boobu li ma ci xotti mën na fukki junni kayit ku ma ko indil balaa ngay génn laa koy xotti sa kanam pour wal na ne li gëmu du gëmuma ko te yow déggoo ñu ne lii ki ko xotti woon këram dafa lakk doomam dafa dee jabaram dafa accidenté maamam dafa man leen xool ma fi ak fukki at boobu ba léegi maa ngi dund sama dara deewul lu ñu war a dee ñoo dee amul garab yooyu ay caaxaan la maanaam yooyu xabaar yu caaxaan ak ay yooyu kenn waru ko gëm kon kenn waru tiital dëkk bi nga defe ne kuy ku doon garde bàmmeelu yonent dina feeñ naan def leen li def leen li def leen li loolu ay caaxaan la et puis bàmmeelu yonent bi benn nit garde wu ay état saou saoudien yi ñoo koy garde ay policiers ñoo koy garde ay militaires nañ jox ko naa la woo naa la woo bismillah yooyu yooyu nañ ci bàyyi xel bu nu bu ñu seytaane di këf yenn saa yi benn waay mooy bëgg jinne yi ñoo koy feeñu ne ko defal nangam nangam nangam moom kenn du ko mën léegi nag muy wut ñu ko dimbali misaal jinne yi ñoo ko wirduloo benn askar benn wird ne ko def ko ñaar fukki junni yoon xam nga loolu benn nit du ko mën léegi nag mu daal di mu daal di koy mu daal di koy multiplier ay na ay nit taf taf taf ci portable yi joxe daal ne un am na benn ñaan bu génn ñaan boobu ku ko def laa ilaha illallah fii ak ginnaaw suba nga gis dox yi commencé ut ay kurus soo fekk mu toog di def fekk waa ji ngay dimbali ñun xamu leen yooyu noonu la sëriñ tariyaax yi di tase seen wirdu yu bon yooyu nga xam ne dañu bëgg yu ku leen ci dimbali loolu alxuraan naan in jaakum faasiqin bi naba in fatabayyanu dee leen leerlu boo jotee dara ñu ne naafila bi ku ko julli da ngay dem aljanna sa baay day dem aljanna ëllëg boo dugal aljanna na nga poñe yàlla nga ne ko fay ma sama naafila balaa nga koy julli laa raj borom xam-xam yi ah naafila boobu ban naafila la kan moo ko joxe ci ban téere la nekk mais gars yi dañuy dégg rek dem def ñu dégg rek sama waay suba ñu ut seen kurus ak seen sijaada loolu la ñu alxuraan di tere doomu ndey yi mbokk jullit yi loolu la ñu alxuraan di tere loolu mooy aaya bi di ñëw tey ci sunu kanam borom bi subhanahu wa taala nee na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا برم تبارك وتعالى نينا وإذا جاءهم سفكين تني دك نتيين أمر بين مبير من الأمن كميرم سكيورتي الله أكبر wa iza jaahum amrun min al amn su fekkee benn mbir dikk na dikkati na ci yéen mbir moomu ci lan lay wax min al amni ci mbirum sécurité lay wax awil xawf day wax pour dëkk bi am sécurité wala muy wax pour dëkk bi tiit azau bi nga gis gars yi daal di gaaw daal di koy tasaare waaw taf taf yëf yi yegsi na rek gars yi tas nañ ko commencé nañ ko tas ci portable yi taf taf commencé nañ ko siiwal ci rajo yi surtout nag rajo léegi yi xoolal li ñuy siiwal ci ay xabaar fekk dara du ci dëgg dara du ci dëgg yi yëpp ay fen la surtout nag yoo xam ne day tiital nit ñi borom bi tabaraka wa taala nee na qaala ahadul ulama li an yaskuta al aqil muxtaaran fi waqtin yuxsinu sukuutu fihi xayrun min an yantiqa muxtaaran fi waq fi lwaqti laa yuxsinu lkalaama fihi fi waqtin laa yuxsinu lkalaama fihi borom xam-xam yi nee na ku am xel mooy koo xam ne day noppi te ba muy noppi moo tànn noppi ci waxtu wu nga xam ne xam na ne noppee ca gën day noppi looloo tax gars yi ne assukuutu fi baadil awqaati xikmatun benn rëbbkat bu dof rëbbkat bu dof yor karabinam pistolet dem ci àll bi di rëbbi gis benn naat naat bu rëy tag ci garab mu naan naat bi de bu ma ko reyee dinaa ci mën a ndogu dinaa ci mën a xëdd dina des ba ma añ ci s- ba ma ndaguwaat ci naat ba daal di naaw lu ko naawal waaw naat bi de rëy rëy na la ilaha illa kii de bu ma ko reyee dinaa ci mën a ndogu xëdd ci naag bi dina toog fa ko koy rey naag bi dem yoonam naaw mu ne ñu ne nit dafa war a noppi yenn waxtu yi nekkul rek loo dégg rek wax képp koo xam ne loo dégg siiwal ko yow baaxoo nit day am bàmmeelu biir mën a denc waaw looloo tax alxuraan nañu borom xam-xam bi ne borom xel mooy koo xam ne dafay nopp ci waxtu woo xam ne xam na ne fii dañoo war a noppi day tànn noppi ndax su waxee du baax qaala abdurahman al allaama abdurahman ibnu saad assaadi rahimahullah borom xam-xam bi nga xam ne kenn la ci ñi firi alquran di cheikh abdurahman assaadi mu ne yàlla dafa ñuy wax ci aaya bi haza taadibun min allahi li ibadi li yar la bu yàlla di yar jaam ñi dafa bëgg jaam ñi yaru an fiilihim haza gayru laiq ci jëf yi nga xam ne wala wax yi nga xam ne dañ koy wax te jaaduwul yàlla wàcc aaya bi pour yar leen pour ñu am ay bàmmeeli biir di denc xabaar bu ñu war a denc ak di siiwal xabaar gu ñu war a siiwal di denc xabaar boo xam ne dañ ko war a denc di siiwal xabaar bu ñu war a siiwal waaye bu fekkee xabaar bi dañ ko war a siiwal aussi nañu bàyyi ña ko war a siiwal siiwal ko mu ne wa annahu yambagi lahum war na ci ñoom ñoom jaam ñi iza jaahum amrun min al umur benn mbir dikk ci ñoom ci mbir yi al muhimma mbir moo am importance wal masalih al amma wala mbir moo xam ne dafay boole intérêt général intérêt bi ñépp la pour dëkk bi la maa yataallaqu bil amni loo xam ne dafay aju ci wàllu sécurité wa sururil muminin ak di kontaan loo jullit ñi aw bil xawfi allazi fihi musiba wala loo xam ne da leen di tiital loo xam ne musiba moo ci nekk mu ne an yusabbitu nañu sax nañ ko nëbb wala yastaajilu bu ñu yàkkamti bi isaati zalika alxabar ci tasaare xabaar boobu mbokk yi li moo jaadu ci ñun su fekkente ne benn mbir ci mbir yi dikkalante ni fi nga mën a nekk yow ab julit nga dégg benn xabaar bul ko gaaw a tasaare même ci sunna yenn saa yi ci xabaar yi da ngay gis da ngay jékki-jékki rek xabaar yi naaw gars yi commencé dëggal fekk loolu dara amu ci su fekkee xabaar bu warul woon jàll la mu daal di jàll yàq lu bare bare bare même buñ koy récupéré waat di ko defaraat fekk yàq na bu dee buy tiital la tiit fekk tiital loo na ñëpp ba pare bu fekkente ne xabaar bu ñu doon nëbb la yëf yi daan ne tegg ca marché ba ndeysaan loolu la ñu yàlla subhanahu wa taala di tere mu ne bal li wër tey mbir yuraddiduuna yarudduunahu ila rasul loolu la alquran bi wax wa ida jaahum amrun min al amni su fekkente ne benn mbir dikkatina ci mbirum sécurité wala awil xawf wala muy tiitalaate azaau bi ñu tasaare ko yàlla ne walaw rudduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum mu ne balaa ñuy siiwal dara nañ ko delloo ci sommet ba sommet ba sommet ba fan mooy sommet bi mooy ca kaw dañ ko delloo ci kilifa yi jamono yooyu nag comme yonent bee fi nekk yàlla ne leen fa rudduuhu ila rasul delloo leen ko ci yonent bi wa ila ulil amri minhum ak ña jiite mbir moomu ahlu ra'yi borom xel yi wala ilmi yéen jàngeen ci suratul suratul namli keroog ba lettre bi picc ma indilee balxiis lettre bi gaa yi nan la balxiis def balxiis mënoon naa yuuxu rek wala jigéen la te buur la mu toog am picc ñëw naaw ba tiim ko daal di koy sànni lettre balqiis jël lettre bi ubbi gis ñu bind innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim mu daal di nan la balqiis def dafa dajale état bi teg yi tet yi kilifa yu mag yi la dajale kàngam yi ci saalam ne leen maa ngi leen di yëgal jot naa benn lettre lettre baa ngi jóge ci buur bu tudd Souleymane buur la yonent la ah tëkku nañu nag wan nañu ne borom doole la ndax nee na vingt quatre heures la nu may suñu waxul lu leer mu dal suñu kaw wax leen la ngeen xalaat gis nga buur boobu dajalewul télé ak rajo yi rek daal ne leen gis ngeen de tey ñu dee ku nekk foo xam dem foo jëm xam jëm jëmal de non mais xoolal teg yi la dajale ñu jiite armée bi ministres yi députés yi sénateurs yi ñooñu la dajale ne leen lii balaa ñu koy siiwal ñun nañu seet lu ñuy def ba pare loolu suratu nam li la nekk ñenn ñi ne ko xoolal nañu xeex ak moom waaye yow mooy kan ñenn ñi ne ñu nit am nañ suñu doole nañ génn suñu arme ba gaa yaa ba pare mu ne man gisewu ma ko noonu de ndax ab yonent ba pare nekk buur kenn du xeex ak moom te moo nu ëpp doole parce que moom ay jinne la yoroon parce que xam ngeen ne Souleymane dafa amoon ay jinne jinne yi ñoo tabaxoon masjidul aqsa keroog ba Souleymane deewee la jinne yi am indépendance daal di tasaaroo waaye Souleymane moo leen jiite woon kenn ñemewul woon génn ci gouvernement am jinne yi tàmbali nañ tabax jàkka ji yàlla rey Souleymane pour wan jinne yi xamuñu kumpa Souleymane dee na ay at taxaw yor kaan bi samp ko ni taxaw yor kaan bi benn gunóor gu tudd max xam ngeen max lan mooy liggéeyam bant wala mu lekk ay téere Souleymane dee na ay at benn gunóor gu ndaw gu tudd max muy lekk a bant mooy lekk garab mooy lekk bant xoolal gunóor gu ndaw la gunóor gu tuuti la ci li gën a tuuti ci rabu àll yi gunóor googu ci la bokk ci gunóor yi gunóor gu tuuti la gu ndaw moo dugg ci kaanu Souleymane lekk ko di ko lekk xoolal gunóor googu kañ lay lekk ci- ci suuf ba ci kaw kon Souleymane yaa gën a taxaw de fekk dafa dee mais yàlla moo ko taxawloo gars yi gis ko defe ne mu ngi dund fekk dee na ay at jinne yi di liggéey ñemewuñ taxaw guddeeg bëccëg amuñu wàcc ñee ngi na jinne yaa ngi naaw di dugg ci biir géej di génne or ak xaalis ak jamaa di tabax jumaa ji ñii ngay móol ñii di birig ñii di suude ñii di dagg mel ne sànce bu ñuy taal ay projecteur 24 heures ñu ne président bi dafa yàkkamti na gaaw parce que dafa bëgg a fekk immigration bi gunóor googu dugg ci bant bi di ko lekk di ko lekk di ko lekk di ko lekk di ko lekk ba egg ci kaw comme Souleymane ni mu taxawee dafa am doole ngelaw li bi mu ko poussé mu dem bant bi daal di damm comme que gunóor gee ko lekk bant bi dëgëratul mu daal di daan jinne yi tasaaroo de am nañ indépendance dafa ay seen liggéey dem seen yoon alawa daal lay jinne yi law kaanu yaalamuuna alxayb maa labisu fi l azabil muhin jinne yi bu ñu xamoon kumpa du ñu nekk ci mbugal mu sax dàq moom kon jinne xamul lu xew suba moo tax ñi am ay jinne di faj ñoom ñëpp ay fenkat lañ jinne yi dañ leen di fen loo rek information bu leen jinne jox sans information 90 yëpp ay fen la ndax jinne xamul kumpa yàlla moo nu wax loolu kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne su xabaar ñëwatee nañ ko delloo ci yonent wa ila ulil amri wala ñu yóbbu ko ca kilifa ya ahlu ra'yi borom xel yi wal ilmi ñu am xel am xam-xam wan nus mën a laaya biir nit ñi mën a orienté nit ñi ba ñu mën a génn ci problème boobu nañu yóbbu mbir moomu ci ñooñu nañ ko yóbbu ci borom xel yi borom gis-gis yi ar raay borom xam-xam yi ñi mën a laaya biir xeet wi ñi am xel allazina yaarifuuna al umuur ñi nga xam ne ñoom ñoo xam dëgg-dëgg mbir yi nañu woo ñooñu waaye fii la ilaha illallah wallahi mbokk yi xabaar day am léegi cinq minutes laa la may boo ubbee RFI rajo France internationale dégg ñu koy wax nga jàpp Al Jazeera nga dégg ñu koy wax loolu dëkk bi jàmm mënatu fee am ndax nit ñi xamuñu lu ñu war a denc ak li ñu war a génnee même biir kër yi nit ñi xamatuñ lu ñu war a denc ak lu ñu war a génnee yàlla bëggul loolu yàlla dafa bëgg ñu jox mbir yi borom xel yi suñ ko waree wax ñu wax ko buñ ko waree denc ñu denc ko waaw pourtant Israël noonu la ñuy def Israël Alier Saron lu ngeen ko xamal yenn saa yi nga dégg gars yi ne dee na wala xoolal ba ñu ba mu ba mu feebaree ñëpp yëg nañ ko waaye dee am est-ce que siiw na Israël duñu tas xabaar mukk surtout nag xabaar buy jëm ci seen sécurité dañ koy denc c'est parce que xam nañ ne bu nu waxee nit ñi xam waaye xoolal jullit yi ñoom dañuy siiwal rek lu xew ñu wax lu xew ñu wax waaw loolu ay jullit loolu nit ñu baax ak ñu bëgg seen réew duñ ko def mbokk yi mbirum sécurité dafa fort mbirum jàmm dafa fort tiital nit ñi yàlla bëggu ko yàlla bëggul ko tiital nit ñi waaw yàlla bëggul ku tiital nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ne nit ñi tey ñu dee bu ñu dee yow la ku ne nit ñi alku nañ yow yaa leen alak mu ne fa in raaw ñooñu di borom xel yi ñooñu di borom xam-xam yi ñooñu di borom mbir yi ñooñu nga xam ne ñoo peeg mbir yi fa in raaw bu ñu gisee fi izaatihi maslaha ne lii tas ko kat jàmm rek moo ciy nekk wa nashaatun lil muminin dana tax jullit ñi gën a sawar wa sururan lahum dana nekk mbégte pour ñoom ah su boobaa nag ñu daal di koy tas faalu zalika ñu daal di def loolu ñu daal di koy tasaare xaw xabaar bi kañ lañ ko war a tas mooy buñ gisee ne tasaare ko jàmm ci nekk buñ gisee tasaare ko day sawarloo nit ñi day tax ku nekk am cofeel sawar def dara su boobaa war nañoo tas xabaar bi suñ gisee xabaar bi mbégte la pour jullit ñi ñu yëg ne war nañ koo tas waaye mu ne wa in raaw laysa fiihi maslaha aw fiihi maslaha walakin mudarra suñ gisee mbir mi jàmm amu ci mbir mi amul benn maslaha bu ci am wala ñu gis ne mbir mi maslaha ngi ci waaye lor a ëpp lor gi ci nekk moo ëpp kon su boobaa ñu ne bu ko kenn tas loolu tax yàlla mu ne la alimahu dana ko xam allazina ñi nga xam ne yastanbituunahu minhum ñi nga xam ne ñooy ballalu mbir yi ballalu xam ngeen lan mooy ballalu dégg nañ olof boobu ah ball kay xam ngeen ko ball ball mooy ndox mi fi muy génnee ah kon bu fekkee ndox mi dafa am ñu koy génne wala mbir mi dafa am ñu koy génne nañ jox ñooñu mbir mi ñooñu buñ ko génnee danañ xam lu ñu war a génne suñ indee xabaar xabaar bi mbirum guerre la kon dañuy woo ñi nga xam ne ñoo yor mbiru guerre mbiru xare ñooy teg yi ñooy sommet bi ñu ne ah xabaar bi kat lii la yëg na ni ñu ngi bëgg a song dëkk bi ña ko bëgg a song kat nangam ak nangam te yor nañ benn bombe boo xam ne wala benn produit boo xam ne moo tax ñu ne leen ah su ko defee ñooñu commencé wax nit ñi nangam ak nangam ak nangam voilà la alimahu dana ko xam allazina ñi nga xam ne yastanbituunahu ñoo ko peeg ñoo ko jàng ñoo ko xam ñoo defe woon formation bi su ko defee ñooñu daan ñu ciy jiite daan ñu ciy orienté xam nan la ñuy génnee ci mbir moomu ci xabaar boobu ay yastaxrijuunahu gaa yooyu nga xam ne ñoom ñoo koy génne yu fakkiruhum bi fikrihim ci seen xalaat wa aaraihim ashadid ci seen gis-gis yu ñaw ko defee ñu daal di teg gaa yi daal di ñëw bu dee yëg nañ ne benn bombe lañ placé benn place wala ñu tiital nit ñi ñu war a bàyyi ñi nga xam ne ñoo jàngi woon loolu ñu ñëw xool naka lañ koy détecté naka lañ koy dindee ba du tàkk ci kaw nit ñi waaw loolu la islam bëgg islam dafa bëgg ci jullit yi ñuy demee xel ñuy demee xam-xam ñuy demee teey ñuy demee dal du nu dégg dara rek daal di koy tasaare ci biir dëkk bi islaam yarul nii jullit yi kon mbokk yi aaya yi aaya bii ak yeneen yi mel ni yii yi ñu paase moo nuy wan ne alxuraan ndeke du téere barkeelu wala barkeelu la sax aha kay mun nañ cee barkeelu waaye nag taxu koo jóg dafa bëgg pour jullit ñi nekk ay nit moo tax ña ko ña ko gëmoon démb dañoo dañoo réussir seen xare yëpp yonent bi ñaata xare la xare ku xam yonent bi ñaata xare la xare ñaata jiri yàlla def xoolal xare mooy jël jaasi dóoranti ñaata la ci yonent def jiriya mooy jël ay quelques nit yónni leen ñaata la ci yonent bi def kenn xamul yonent dafa amoon ngànnaay am fas bu muy war am mbaam bu muy war am yëre bu muy geere sallallahu alayhi wa sallam te mbooloo mi bu daan dem moo daan nekk ci kanam moom daal wax dem leen toog waaw comme li xew tey nga xam ne kilifa diine gi day toog gaa yi nekk ci tool yi bu paree rek ñëw ñaan tàllal leen ma ñaan yonent bi moo daan jël illeer bi jiitu jàkkaam ji bañ koy tabax sallallahu alayhi wa sallam moo daan yenu birig yi Hamza ne ko doo toog mu ne déedéet yàllaa ñu jàngal xayru naas anfaahum linnaas seydul qawmi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di jàng ki leen di jëriñ yonent bi moo jiite keroog liggéey bi dem ñu koy yen ay birig mu koy yenu di ko teg ci mbaggam di ko indi Hamza di ko wàcce saaba yi di móol ñi di gas ñi di daggi garab loolu lañ tabaxee jumaa yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallahi bu ko neexoon mu toog wallahi bu toogoon kenn du ko ne lu tax nga toog waaye day jàngal nit ñi ne liggéey jaamu yàlla la day jàngal nit ñi kilifa naka la war a mel yonent bi du woon kilifa goo xam ne bu nit ñi liggéey mu toog jàngaleen histoire ba ñuy gas xandak peel yi di jóg ba ñuy gas canal bi peel yi di jóg di teg peel yi di jóg di teg ba ñu egg ci xeer boo xam ne kenn xamul lu ñuy def gars yi dóor dóor dóor pikk yi ba sonn xeer bi na këkk yonent bi daal di wàcc si ci biir xeer bi da jox leen ma pikk bi ñu jox ko mu xaj duur xeer bi génne lumière ba muy gis sooroori Kaysar mu génn waa dóor lumière génn ba muy gis sorori sàmm yëkkati dóor ba muy séen sorori masjidul aqsa mu ne yàlla xamal ne man lislaam day tasaaroo fii leer gi yëgg yëpp islam bi dina la fa yegg xeer bi daal di mokorcoro gars yi daal di tibb peel yi daal di génne ci biti sallallahu alayhi wa sallam benn bis tëdd nañ mbir Médine ñu jékki-jékki rek dégg benn bruit bu fort ba ñëpp yeewu ñëpp tiit nit ñi bu ñuy tiitee nit ñi génn commencé génn ci buntu kër yi xam nga Sénégal tey bu dara xewee buñ déggoon guddi rek ñu dégg ay yuuxu waay waa paa yi buñ génnee nu ñuy def dañuy làqatu ci buntu kër gi ubbi tuuti na nii yërndu paa bee ubbi yërndu paa bee la ubbi yërndu gisuñ dara lu xaw a mbedd bi ñetti nit daal di génn su ñetti nit génnee ñeneen ñi ñeme ni yaa waaw lan la ah kii yuuxu de boor bii la bu fekkee am na ay jàmbaar ñu ne mu ne du jàmbaar ah ay bandi lañ rek dañoo bëgg ko ñu rey rek ko ñu nangu li nga yor dem duggiwaat looloo tax dëkk bi am problème ngay gis ñaari nit rek dugg ci benn oto génne jaase rek ñëpp ne pat ñu nangu ñëpp luñ ñor daal dem seen yoon bu ñu wàccee nag nga gis gars yi commencé weleelelelele ci weleelele ci kenn du wax yenn saa yi sax mu nekk benn nit benn nit benn nit xanaa benn nit kay benn nit la mën a rey waaye du rey ñëpp mënu rey ñëpp bu ko ñëpp songoon jëmee kenn kay daa ngay jëmee.
su jamee kenn balaa muy jamaat waaye kenn ay ay ya alal ji portable bi maa ko liggéeyoon na dem dinaa ko amaat nit ñi dañoo yombal seen problème yi loolu tax dëkk bi alku nit ñi dañoo yombal mi trop mbir yi maa ko amoon ji yaa ko amoon ba dox xanaa xamuloo ku xeex ci alalam buñ ko rees àjjana la jëm bu nit ñëwee di jël sa alal nga riposté ndeysaan xoolal démb wallahi démb ñëw naa fi tafsir ya bi ma paree tafsir cinq heures dama jël oto dem aéroport dama fa amoon rendez-vous ci wetu aéroport kër yi benn borom xam-xam bu mag boo xam ne saa yu may def conférence dina ma may ay téere mu ngi tudd oustaz Abdallah Ba ay jamono jiite woon na benn organisation bu tudd Zakat House professeur la ci benn école bu tudd Alfala Pikine bi ma demee balaa may dem dama ko woo téléphone jotuma ko ma woo ko téléphone jotuma ko mais comme joxoon na ma rendez-vous ne ma heure bii na nga ñëw ma ni woo naa ko jotuma ko mais naa dem comme joxoon na ma rendez-vous moo gën ma jël taxi départ ma ñëw wàcc taxi bi droite dama ko jël aller retour ma ñëw fekk mu toog nit ñi wër ko man ko oustaz woo naa la jotuma la mu ne dañ ma agressé fii démb ci guddi sama buntu kër fii lañ ma fekk man ndogu ba pare lal sama siyaada tëdd sama téléphone sonné ma jël di wax benn waaye fekk ma ngadd ma portable wadd mu jël ko jéggi ñetti xam nga voie autoroute yi voie yi ni ñu rée ak pont yi waa ji jéggi taxaw yi fa la dem yoonam mu ne ma taxaw di waxool ma nga ne la dem mu ne ko mbaa gaañu la mu ne ci bopp kay la ma dóor paa bu màgget woor ba ngoon ah nga fekk ci bu waxuma sax ci mbedd muy dox de ci buntu këram ñu lalal ko sijaada mu tëdd di noppalu nga ngàdd ko jël alalam dem sa yoon loolu ñaata la tey ci Sénégal ñaata nit lañ fiy rey ñaata nit la ñuy jam ñaata nit la ñuy jël seen alal du jeex du jeex ci dëkk bi léegi am na ñoo xam loolu la ñuy liggéey ay agresseur lañ da ngay dëkk ci koñ ñu ne la diw agresseur la ñëpp xam ne agresseur la ñu noppi di ko xool boo tax yii damay bañ mu jëlal ma jaasi kii yi nga xam ne moom boo waxee rek mu jël jaasi maanaam nit ñi ñoo may band yi li ñu nekk lancé naa la tey benn benn jigéen bu ñu rey Arabie Saoudite temps yële lañ ko reyoon mais dañu dañu delloowaat film bi ci Facebook bi tey ku wet dina nga dem nga seetaan ko lu ñuul kukk lañ ko solal indi ko ba ci Carrefour bi mu naan maa qatalt di yuuxu maa qatalt ba déggatoo baat bi jaasi lañ ko dóor baat bi wadd mu ngoog jëkkëram la rey kooku dootu reyaat buñ jàppoon ñaari agresseur xam ngeen agresseur lan mooy atteem ci l'islam mooy nañ daggu tànk góosam ak loxo droitam wala ñu génne ko dëkk buñ jàppoon ñaari agresseur yóbbu leen ci benn esa dagg seen loxo droite ak seen tànk gauche ñaar kon kenn dootul agressé buñ jàppoon ñaari reykatu nit wala benn ñëw la ba stade dagg sa bopp wala ñu dóor la bal ñëpp di gis Hmm, kon li am léegi du am da ngay wax xale bu ndaw mu toj butel dama lay jaaw booy xoolal am na ci ñoo xam ne nag pour ñu tiital la bu ñu tojee butel ba pare seen bopp la ñuy jam ren ci na càmm ngi ne wuy ay wuy rek ah mu sangu la ñu dégg gars yi ne kii moo sadik boppam la njëkk a jam yaa gars yi daw su ko defee moom it comme dañuy tox yàmbaa ba dootuñu xam fu ñu nekk dañuy drogué wu moo tax ñuy def yooyu bu la fekkee foofu nga taxaw mu daal lay gaañ te ñun ñoo leen bàyyee loolu nit ñi ñoo leen ci bàyyi population bi ñoo leen ci bàyyi
boo ko jël boo ko gaañee léegi wala ku doo wax ah boo dóoree sàcc boo demee dóoree sàcc boo demee ñu ne da nga dóor ko doo wax moom ba pare ñu ne da nga indi ko añaa man dinaa jàpp sàcc indi ko añ te xam nga lu garaaw mooy loi adduna yii sàcc yi ak bandi yi lay aar mais aarul borom alal yi borom kër gi day nekk ci biir këram sàcc bi ñëw yor jaasi borom kër gi jóg mu rey ko borom kër gi perte dem yoonam bu ko borom kër gi gaañee yóbbu ba ñu ne non non da nga koy faji da nga koy faji yaa ko gaañ boo ko rey ñu tëj la police mais waroo ko woon rey léegi kon loi bi kan lay aar bandi la yaa soo waxee ku rey nit islam ne nañ ko rey ñu ne non waa léegi kon moom waa ji rey nit nag ki rey ki rey nit ki non kooku loi bi la du du du waajee rey maanaam ki ñu jël pour muy rey ku rey nit ay bokk xaraam ak yooyu fan loolu ko indi chaque jour yooyu fan di nañu bàyyi xel ne lii indi lii indi violence loolu la ko andi mooy bañ a régler problème gis nga da ngay dégg ñu ne Cambérène bu ñu jàppee saa ci nañu koy def di tëmbal ci ndox dañ koy nit dañ koy dañ koy tëmbal ci biir géej diigal ko takk ko ay briques yóbbu ko fa géej te diigal ko caaroy géej bu ñu jàppee saa ci nañu koy def diigal ko biir géej xaw ma ban dëkk bu ñu jàppee saa ci nañu koy def tëmbal ko ci gargamboos xoola yu garaaw yi loolu nu mu garaawee mais lan moo tax ñooñu di ko def c'est parce que xam nga lu tax dañoo sës dañuy jàpp sàcc léegi léegi timis am na benn sàcc bu ma lancé kii tey Facebook na ko na ko seetaan sàcc bi billahi wallahi wa taalahi buñ la wanee fi mu jaar doo ko gëm waa police ci seen bopp biñ defee enquête mu ne leen fii laa jaar waa police dañ ko ne déedéet dañ ko indiwaat ci kër gi ñii nekk ci biir ñii nekk ci biti ñu ubbi fenêtre bi ne ko dugal waa ji ci giri yi la jaar giri yi gis nga lii lii lii waa ji fii la jaar ñëpp di yuux xaw ma ban dëkk la mu ñëw taxaw dugal tànk yi tourné fexe ba tourné ba dugg ci gi lii laa wax bën bën yu ndaw yi mu dugg ci man bi ma ko gisee dama yaakaar ne dafa teg tànkam ci giri bi di yéeg yéeg dem ci kaw ma gis mu dugal ñaar tànk yi ma ne waa kii lu muy def nii waa ji naan nii di orienté wu di orienté wu di orienté wu ba ne pacax ci biir néeg ba policiers yi ca biti ñëpp di yuux loolu moo ne gars yi li ñuy def ñoo dañ ko entraîné dañ ko jàng dañ ko xam et puis ku la sàcc wala ku la agressé daf la mës a gis xam na yow yor nga lu yor valeur wala ku ñëw sa kër yenn saa yi nga gis kenn koo xam ne fa mu denc dara biñ ko sàccee dafa leer na foofu nit xam na fa dara wala léegi melokaan yu araam yi ñor dañuy ñëw sa kër fekk nga yor say xar ñu rendi xar yi ci biir kër gi fees ko ci guddi gi yóbbu yàpp yi bàyyi la mbàq yeeg butit yi ak bopp yeeg tànk yi ne la suppal boobu loolu mooy ñam ci quoi sa ñamu bët loolu la mooy sa ñamu bët bàyyi la bopp bi non ak butit yi ak tànk yi quoi yóbbu lépp nga yeewu non mais loolu ba defee seen bopp léegi sàcc sàcc waaw buñ ko defee tey ku am juróom-ñaari xar ku am juróom-ñetti xar ku am fukki xar ñu rey xar yi mais kooku ëllëg ak si biir mbokk yi bu bu nee tëll fenn mu gis ñu ne kii sàcc la lu muy def jaasi lay jëli loolu moo tax dëkk bi bu ñu jàppee sàcc ñu rey ko c'est parce que police du du ci def dara dañuy jàpp léegi sàcc dem jugé ko boo demee tribunal gis ñuy jugé sàcc yi da ngay xam ne ñii ñoo tax sàcc yi di sàcc ay deux mois ay six si sàcc bi sàcc loo xamante ne kenn xamul nu mu toll ñu tëj ko deux mois mu ñëwaat ci koñ bi dala xool te yow la mu sàcc perte nga ko doo ci jot perte nga ko nga koy gis mu dëkkaat ak yow encore nooy def kon yooyu ay mbir la yoo xam ne alxuraan rek moo ñu ci mën a génne feek tënkuwuñu ci njàng li nu yàlla li yàlla bëgg ñu jàng li yàlla bëgg nu dund nii rek la ñuy dundee mooy ay caaxaan nii rek la ñuy dundee ay caaxaan gars yi war sunu kaw rek war seeni loi yoo xamante ne seeni loi yooyu ñoom lay arrangé arrangé wul jullit yi waaw mu ne wa fi haza dalilun lii dalil la li qaidin adabiya wa hiya annahu ida xasala bahs fi amrin min al umur yambagi an yuwaali man huwa ahlu zalim mbokk yi lii yar la lii njànglin la bu ñu yàlla jàngal ne mbir su xewee nañu seeti mbir yooyu ña ca xam dara ñu jox leen ko wala mbir su xewee nañu seeti ña ca xam dara ña ca mën dara ñu woo leen kaay leen ay fii Sénégal da ngay gis ndeysaan yëpp li sama yaay doon wax benn waay dañoo toxu jóge Dakar ñëw Géejawaay waa ji ñëw nekk l'homme douze métiers looy liggéey lu rek mu ne mën naa ko boo ko ne peintre mu ne mën naa ko nga ni ko maçon mu ne mën naa ko nga ni damay suude mu ne mën naa ko nga ni ko damay ñaw mu ne mën naa ko loo wax waa ji mu ne mën naa ko loolu nag mu loolu du dëgg nit kay lenn ngay mën rek waaye mënoo mën lépp ku xam lépp ku mën lépp kooku kenn kese la mooy yàlla waaw da ngay xam lenn leneen li doo ko xam nga bàyyi ñeneen ñi def waaye boo buggee ne yaa mën lépp nga nekk l'homme douze métiers loolu du dem waaw ah benn du ci mokk dara du baax waaw waa ji dañ ko jox néeg bi ne ko peinture mu peinture ardoise yi d'accord ngeen ah d'accord ngeen mu peinture ardoise yi mu weex taal alhamdulilah maire bi dugg na alhamdulilah mu peinture miir yi ñeenti koñ yi gars yi ne alhamdulilah mu peinture dër bi mu wàcc maire bi simmeeku raxas bay bëgg dee waaw parce que mënul lépp la peinture ci kaw ak ci suuf ak ñeenti koñ yi waaw peinture ko nag ndeysaan ba orné nag orné dër bi dessiné ci ngandim biddéew ak weer ci digg bi dafa mënul xam nga kooku mënul ku nekk xam ne ne dër kenn du ko peinture waaye waa ji daal di koy peinture nag wax moom mu peinture ko mu décorer ko nag def ci biddéew ak weer mais kaay leen xool maire bi ne ko ajaaraama ya simmeeku lii yar la bu ñu yàlla di yar ne mbir su ñëwatee nañ ko jox ñi ko xam wa yaj'alu ila ahlihi wala yataqaddamu bayna aydihim fa innahu aqrabu ila alsawab wa ahra lilsalama min alxata nañ jox mbir yi ñi ko xam da ko jàngoon na ci am xam-xam loolu mooy li gën a jub loolu mooy lii tax ayib daat ci mucc loolu mooy lii tax ayib daat ci mucc mbir moomu du ayib mu ne wa fiihi nahyun anil ajalati wa tasarruf waaye dinañ jàng ci aaya bi mbokk yi yàlla di ñu tere gaawtu gaawtu anil ajala li nasril umur bu kenn gaawti di tasaare mbir xabaar boo ko yëgee neel teg denc ko denc ko diir gëstu waaw gis gis nga yenn saa yi da ngay jékki-jékki rek ñu woote benn kër daan ne diw dee na wala comme comme comme fan yii li ñu def benn borom xam tudd Mouhamed Hassan ñu tas ci Facebook bi ne dafa dee fekk dara jot ko yenn saa yi day am ay noon ñu la bañ daal di tas ay xabaar ci yow xabaar yi daal di tasaaroo daal di dem am na benn woykat bu siiw Sénégal dañoo xëyoon rek ne dee na yéen a ngi fàttaliku jamono boobu ñëpp di ko wax. waaw am na sax benn sëriñ boo xam ne génn na àdduna mais balaa muy génn àdduna tasaare woon nañ ne dee na wala muy sëriñ Mouhamadou Mansour gars yi mosoon nañu wax ne dee na fekk dara jotu ko yu mel noonu nag bu ngeen ko déggee balaa ngeen di yéen tamit lancé ne dëgg la kenn jot xabaar bi ne ah man de diwa ma ko wax mooy nañ nga def ndànk xabaar kenn du ko gaaw tasaare bul gaawut xiina samiaha jamono bi nga ko déggee teeyal mu ne wal amru bi taamin qabla al kalaam maanaam sécurité la ñu bëgg balaa ngay wax mooy ñu jàmm na nekk wan nazru fiihi nañ xool mbir mi hal huwa maslaha ndax lii yéwén na fa yataqaddamu alayhi al insaan am la su fekkee day yëwen nit ñi daan def acca bismillah su fekkee yëwenul nit ñi arrêté ko daal koy freiné waaw mu ne summa qaala taala après borom bi tabaraka wa taala daal di wax mu ne walaw la fadlullah cey bu doon du mbiru yàlla bu doon du ngëneelu yàlla fadlullah bu doon du xéewalu yàlla aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërmandeem lattabaatum seytaan di ngeen topp seytaane illa qalil lu dul lu néew dégg ngeen yàlla nee na ba ngeen déggee xabaar teeylu leen teeyu leen ba tasaare ko te du xabaaru jàmm musiba tasaaroo ci dëkk bi lu tax ndax da ngeen a topp seytaane moo tax waaye xéewalu yàlla moo ñëw ak ngëneelam ak formation bu mu leen formé ngeen déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay fi tawfiqikum yàlla defal leen ci jàmm wa taadibikum yàlla yar leen wa taalimikum ak jàng bi ngeen jàng maa lam takunu taalam lu ngeen jànguloon looloo xam looloo tax tey ba xabaar bi ñëwee ngeen bloqué ko keroog ba gaa yi demee Uhud ñu dóor sahaaba yi rey Hamza rey sahaaba yu bare bari ñu bari daw yéeféeri ne yonent bi dee na ñu bëri ci sahaaba yi daal teg seen gànnaay ñenn ñi daal di daw am ñu taxaw riposté daan ne bu yonent bi deewee yonent la woon yàlla da koo yónni woon waaye diine islaam moom du warul fay kaddu yàlla warul wàcc warul fay waaye xabaar yooyu gars yi dégg na yonent bi dee na mu dawloo leen dañ leen mujj di woo naan leen yonent baa ngi nee yonent baa ngi nii dara dalu ko yonent baa ngi nii dara dalu ko waaw ay xabaar dañ koy denc mbokk yi yàlla nee na ci xam gim leen xamal yar gim leen yar jàngal gim leen jàngal lu ngeen xamul woon loolu ngeen war a xam ba bu ngeen déggatee xabaar ngeen tey waaye bu dul loolu la tabaatumu seytaan di ngeen topp seytaane illa qalilan lu dul néew li anna al insaan bi tabihi zalimun jahil wala taamruhu nafsahu illa bi shar waaw lii di ñëw de du neex a dégg waaye nag loolu la boroom xam-xam yi firee aaya bi mooy doomu aadama ci nature bi ko yàlla bindee tooñkat la zalim tooñkat la yàllaa ko wax inna al insaana la kafurun ah doomu aadama tooñkat la la kafaarun zalum tooñkat la waaye dafa weddi yàlla tabaraka wa taala yaa ngeen ci aaya inna aradna al amaana ala samawati wal ard fa abayna an yaxmilnaha wa asfaqna minha wa xamalahu insan innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman jahula doomu aadama tooñkat la waaye ignorant la jahil la bu mag a mag moom doomu aadama waaye moo fi dàqa tooñ day tooñ boppam tooñ moroomam tooñ boroomam su noppee ci tooñ boroomam tooñ boppam moroomam la jëm lu tax ndax bakkanam moo koy digal lu bon li muy def ndeysaan chauffeur taxi moo jëloon démb mu góor gi diñ ko doon wax góor gi ñu doon wax ne dañ ñoo ag- dañ di ko agressé chauffeur taxi bi ñu duggee ci oto bi mu ne man mii sax agressé nañ ma de mu ne ki ma doon agressé xam nga bi mu ñëwee lu mu njëkk a def mu ne yàlla la njëkk a saaga pour yëg pour wan ne ma ne moom gëmul dara yàlla la njëkk a saaga pour wane ma ne wane ma wan ma ne du ma la yërëm dama lay teg nee na baat bu mu wax nee na daf ma saaga baat bu mu wax dama lay nangam boo indiwul nangam man nangam la waaye man yëpp ay saaga la commencement ba fin mu ne ma génne li may réeb jox ko te kat nee na bi mu duggee ci oto bi mu ngi may wan ne mbokkum taalibe la mbokkum taalibe la la ma doon jaay nekk mbokkum saay-saay la au lieu de mbokkum taalibe mbokka ca ginnaaw kii ci kanam kii ci ginnaaw mu ne jekk jee rek tag may jaasi na- rocc ci sama caabi oto ne boo ŋaaŋee rek ñu nangam la na sa sa njaboot nangam sa waa kër nangam nga nangam mu ne yëpp ay saaga mu ne ko cëy ay waay yàlla na yàlla dimbali waay doomu aadama bakkanam bakkanu doomu aadama dafa tilim moo tax lu tilim rek la koy def loo doomu aadama bakkanam tilim ba muy rey nit doomu aadama bakkanam tilim ba muy saaga yàlla ci ay am-am yu ndaw ndaw ñaari portable mu ne la leen jox ak versement xaw ma cinquante mille xaw ma soixante mille ñooñu tey boo leen laajoon portable yooyu anamu boo leen laajoon cinquante mille yooyu anamu ci guddi googu lañ ko taal ndax alal ju lewul moom day naaw comme matt buy tàkk alal bu lewul day naaw comme ngelaw même bu dee alalu riba la boo ko amee day naaw du taxaw sala ci tumarankeel muy jëjëm ak yow te ku dëkk ci sàcc dëkk ci ñaaw ta ñaaw ñiw ñaaw teef yu bon yooyu di agressé di sàcc wallahi fi ngay mujj du baax mën ngaa sàcc fukki yoon waaye fukkeel benn bi baax na bañ jàpp la danañ la dóor dóor yoo xam ne boo ci jógee boo rombatee dërëm bu wadd doo ko far wala dana la dóor dóor yoo xam ne portable yi nga jaayoon yëpp ak xaalis bi nga amoon yëpp di nga ko génne fajoo ji ko kon lu ko fi jar dama nga liggéey ji dañ dem liggéey yi ni gars yi def bay sàcc di agressé nangam ak nangam di sa coono googu buñ ko defee buñ ko buñ liggéeyee am mais sénégalais yi dañu bëgg bañ a liggéey bëgg sol lu rafet bëgg yor portable bu kenn yorul dàll yu kenn solul mbax ne bu kenn solul tubéy bu kenn amul bu dee jigéen ñi létt bu kenn amul moo tax mbon rek mbon rek doomu aadama nit day doylu li la yàlla may nga yem ci portable 15000 nga am jàpp ci waaye déedéet damaa bëgg yor portable boo xam ne fu ma ko génne ñu xam ne man dong maa ko fi am xoola waa ji bi doon tiitaru fan yi oto 100 millions ndeke papaam dafa am machine bi defar xaalis biir këram gisu leen oto bi 100 millions lay jar wala voilà voilà ndeke dañu yor seen machine gis ngeen fu leen yàlla mujj feeñal voilà oto 100 millions lu ko nit di doyee xanaa du oto oto la rek ah waaye yoroon am na benn oto bu tuddoon bal bonde xam ngeen ko deux chevaux ki am loolu ah ak ki am Kia ak ki am limousine kële day sànni bosam day day kele da koy romb rek mu daal di def bi essence daal koy taal ndax lii la am déedéet day jàpp ci li xam ne lii la am wala fii la doolem toll c'est ça ku nekk li nga am loolu la la yàlla jox mais sénégalais yi dañ dul yem ci lu ñoom yàlla day tere yenn yàq yi wax nañ la lekkal ah kay wax nañ la ko de mais dañ la bul yàq wax nañ la solul dañ ne la bul yàq wax nañ la naanal dañ ne la bul yàq utal oto mais dañ la bul yàq utal oto bu yem utal lu yem xayrul umuri aw satuha mbir yi li ci gën mooy lu digg duum doomu aadama warul ëppal mais dafa am ñoo xam ne bëgguñu tolloog nit ñi dañu bëgg chaque jour na leen nit ñi xool loolu du jur jàmm du jur jàmm moo tax gis nga moo tax dëkk bi mel nii loolu tax gaa yi jël gaal yi loolu tax ñuy dee seen i ndey ak seen baay ñàkk leen ak seen i njaboot parce que lan bañ a yem ci liñ leen yemloo mu ne fa iza lajaa ila rabbihi wa'tasama bihi wajtahada fi zalika latafa bihi rabbuhu doomu aadama ab jullit su laqatoo ci yàlla laja ila rabbihi wa'tasama bihi mu way ci boroomam wajtahada fi zalika mu góor góorlu ci loolu boroomam daal di lewet ci moom kon ku bëgg yàlla lewet ci yow ku bëgg yàlla defal la jàmm ku bëgg yàlla may la am am ku bëgg am am boobu yàlla barkeel ko laqatul ci sa boroom wa waffaqahu li kulli xayri wa asamahu min alcheytaani rajim ku bëgg mucc ci seytaan laqatul ci sa boroom boroom xam-xam yi nee nañ boo demee ci kër nga fekk kër gi am xaj bu soxor xaj bi ñu tekki ko mu lay mbaw di la bëgg a song soo bëggee mucc ci xaj bi nooy def laqatu ci boroom xaj bi mu ne ko hee xaj bi daal di yem waaw seytaane xaj la kan moo ko moom yàlla soo làqatoo ci yàlla yàlla musal la si seytaan moo tax nga juna la ngay wax aoudu billahi min alcheytan rajim waaye nag bul gàddu yëfu seytaane ba pare rek naan aoudu billahi min alcheytan rajim de ni sëriñ bi waxoon taalibe bi ah gàddu lu araam ba pare naan aoudu billahi min alcheytan rajim mu ne ko jaru ko bàyyi lii fam rek seytaane moom boo bàyyee yëfam mucc nga mucc ci moom waaye gàddu butal sàngara naan aoudu billahi min alcheytan rajim ma fas yéene naan sàngara si yal na ma yàlla musal ci seytaane doo mucc ndax yaa yooyu fëpp nga yor kon ku bëgg a mucc ci seytaan nooy def da nga koy sori sori lam moom sori ay dëkkuwaayam sori mbooloom sori ay àndandoom sori njabootam sori waa këram sori am amam yàlla musal la ci mu ne wa aqwalu hada mu ne hada kalaamuhu li mooy waxu al imam saadi rahimahullah mun nañu bare bari ci borom xam-xam yi rafetlu nañ tafsir bi mu tafsire aaya bi nii mu ne qaala cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah mu ne wa fi ljumla falbahsu fi hadihi daqaiq min wazifati xawaasu ahli lilmi mbokk yi réew moo dem wala dëkk boo dem wala nit ñoo dem nit ñooñu war nañoo xam ne war nañu ut ci seeni biir ay nit ñoo xam ne dañuy delluwaat ci ñooñu xam ngeen lu tax sénégalais yi tey gëlëm li tax sénégalais yi riir li tax sénégalais yi sànq mooy dañoo amul repère amuñu fu ñuy dellu da ngay gis xale bu ndaw sax ci biir këram amul amul fu muy dellu xale bi du roy baayam du roy yaayam da ngay gis xale bi di roy mbër mi mbër lu tax xale bi roy mbër bi c'est parce que papaam mbër mi la ko won c'est parce que papaam mbër mi la ko jàngal sénégalais yu bëri ay ay ay ay sindax la ñuy roy ay sindax la ñuy toppandoo amuñ lu waral loolu mooy amuñu fu ñu dellu amuñu ñu ñuy ñu leen di orienté amuñu ñu leen di jubanti te nit ñi dañoo war a am fu ñuy dellu ndax kat jàmm ak lu dul jàmm moo fi nekk jàmm ak lu dul jàmm moo nekk ci dëkk bi tey dañuy am jàmm suba duñu am jàmm kon bu ñuy am jàmm war nañu am ay nit ñoo xam ne jàmm jooju ñooñu ciy diriger ba jàmm ji du mujj a yàqu wala même bu dee xew xew ngénte jàmm la wala du jàmm ah bu njëkk ba xe- ngénte ñaata fan la woon suba si rek tey ngénte ñaata fan la avant pendant après ak après après waaw xam nga lu tax parce que amul kilifa gu fay jiite ci kër gu mel noonu gis naa benn waaye boo xam ne day ngénte yaayam ne ko comme bi ngay céetal xumbaluñu woon foog nga jaay sa terrain bi ñu ñu ngénte mu dem jaay terrain pour ñu ngénte doom ba tey mu ngi ci location ba tey jii mu ngi luwe wala jaay terrain ndax ngénte jaay terrain ndax ngénte ndax kooku am na xel ba ci dëj yi même dëj yi da ngay gis dëj yi nga xam ne dañoo jàng wala ñu am fulla bu ñu suulee ñëwaat ñu ne yépp yem na tey amul saraxu benn fan amul saraxu ñaari fan amul saraxu ñetti fan ku ko dégg sax bul ñëw ñaanal rek acca jël leen saisi delloo nga dégg ñu naan ah jël leen tibi wàcce leen baas bi acca ñibbi nga gis paa yu am fu lay dugg ci biir jigéen ñi ne ak jigéen ñi acca nga dégg ñu bëgg a noos naan moo nan nu dimbali moo ñoo soof ak seeni sikkim ndeysaan waaw mbokk yi lu yonante deful woon diine war nu ko def diine dëj yonante def ko woon diine dëj amul ci lislaam dëj yi am Sénégal nii nga xam ne bu nit dee rek foog ñu rey nag day dama fàttali dañ lay nekk sax ah day dama fàttali dañ lay nekk.
non dëppan dëj dëj boo ci gis dafa xumb neex buy bëgg dee ceeb yu xonk cur yàpp bu fat ay mbaxal la ñu ngi rey léegi mbaxal.
ba pare bu nu lekkee ceeb bu xonk bu ngoonee ñu cere cere jur naaf naaf naaf yi ñëpp toog kenn du ñibbi dëkk bi suñu ñibbi.
ñu làng waxtaan yi wala wala day laa ko waxtaan.
dëj bi xam nga ban heure la waajaa ngi ci morgue bi ñu ngi koy sang soo génnee gis gars yi na tekk boo demee kër ga gis jigéen ñi muur na tekk suuli nañ ñëwaat nañ ah terminé bu ñu añee ba pare ba ndox mu sedd mi dàqante nga dégg ku ne eh man de sama bopp bi day metti naa la bu ma ataaye nañ ataaye diw la walal
loolu dama tax ñu joxe ñu ah otes waaw wala dëj dañuy otes ñu yore carte bi ñu gis
fi ma njëkk a gis dëj otes dëj mooy ay xale yu góor yu sol ay t-shirt yu noir ñu bind ci seen seen daayira ñoom ñoo otes yor kees gi kees gi kees gi kees gi néew bi ñoom ñoo otes yor yor ko ci oto bi ñu yéeg ñoom kese ñoo fa nekk ku solul t-shirt boobu doo yéeg ci oto bi ñoom ñoo yor kees gi yëkkati ko ba ba ñu egg ci armeel yi ñoom ñoo yoraat kees gi bi ñuy ñibbi ma liir ko muy daayira ma mun ko wax léegi daayira benn daayira bu ngande bu nekk ci biir Sénégal tarixa benn tarixa ñu am daayira gaa yi otesu def ay tisat ma ne allahu akbar xoola caaxaan yi rek waaye Sénégal nan dem rek ba nu commencé jaar ci mboy mboy gi ba léegi gisuñ ci njëriñ nañ leen dëpp lii ñuy def fii du diine gaa yi lii du diine génn leen ci yii ngeen gis ni dara du ci diine mas ngeen gis kuy ku am ku am naqar di lekk yàpp ku am naqar kay lu mu war a lekk dëgg-dëgg dëj sombi lañ waroon togg sombi sombi bi sax waruñ ci woon def sow ak sukkër ndax lan ci naqar lan nekk wala ah waaye nag bi gën a ngand ci nag yi la ñuy dem indi yeew ko indi ay cin konte leen ci nii kan ci yéen fi moom mu soro mu dëj ñaata cin nga fa gis cinquante cin ñu rangale leen cin baas yurul jeex takk ay rajo di yuuxu jigéen ñaa ngay jaagar jaagar yi paa yaa nga toog fële yëf yi man gis naa benn dëj boo xam ne xale yu góor yi xale yu jigéen yi dañoo dem solu meer sol yëre meer bi ñu ne ñu ne xaw ma lan dañuy maamu maamu ñu ñëw ci doomu meer bi góor ñee jigéen ñi ñooñu di leen jox xaalis ñu ne dañuy maamu meer bi di def affaire sabotage yoo xam ne ku nekk ci dëj allahu akbar moo tax ñun xamuñu ay ceddo lañ li Moustapha Gueye di wax Sénégal ay ceddo lañ woon dañoo tuub mais est-ce que tuub nañ baat boobu dañ ko cee war a boole mais est-ce que tuub nañ ndax kuy ceddo boo tuubee da ngaa war a bàyyi la nga nekkoon tuub mooy la nga nekkoon nga génn ci mais ñun dañoo tuub ba pare lañ nekkoon ba léegi ñu ngi ci est-ce que kon tuub nañ
mooy ñu lañu bañ a bàyyi loolu loolu du diine kon nee na nanu xam ne mbir yi dañ ko war a jox chaque jour pour nu war a toll ñu ciy génne chaque jour mbir bu ne këcc dañoo war a xool nit lii day suñu woowee ñoom diw ak diw ak diw ñu génn ñu ci lii ñu daal leen di jiital ñu génne ñu ci mu ne wajaa fi tafsir al imam ibnu abi زمين رحمه الله الذي هو مختصر لتفسير يحيى ابن السلام رحمه الله من وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به قال قتادة إذا جاءهم أمر من الأمن أي من أن إخوانهم آمنوا ظاهرون أو الخوف يعني القتل والهزيمة أذعوا به أفسوه alimam qatada nee na mbokk yi aaya bi yàlla naan isa jaahum bu dikkee ci ñoom amrun benn mbir minal amni ci mbirum sécurité awil xawfi wala ragal bu dee am na mbirum sécurité ay min ixwaanihim sécurité koo xam ne ci seeni mbokki julit yi dem jihaat ñoo dem ba ñu demee jihaat yi ñu dégg gaa yi dem kat ah am na lu dal seen kaw wala gañe nañ bu dee dañoo dégg gañe nañ loolu minal am na dafa ci mbirum sécurité la su fekkee dañoo dégg gañe nañ leen loolu awil xawf ci mbirum lu leen di ragal la kon lu ñu war a def mu ne ñu daal di koy delloo ña ko xam alxawf mooy alqatl awil hazima rey nañ leen wala gañe nañ leen mu ne azau bihi afsuuhu ñu daal di koy tasaare nee na la ca gën nag wala rudduuhu ila rasul suñu delloowoon mbir yëpp daal di koy delloo yonent comme yonent ngi dund dégg nañ benn xabaar balaa ñu cee def dara ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko waaw yonent ñun dey dañoo dégg benn mbir moo tax balaa ñu cee def dara ñu ñëwoon di la laaj yonent nekkatu fi ñu yóbbu ko ci ulul amri minhum ay ulul ilmi minhum borom xam-xam yi mu ne la alimahu allazina yastanbituunahu minhum ay allazina yafxasuuna anhu wa yuhimmuhum zalik ñi nga xam ne danañ ci gëstu mbir mi yitteel leen ñu jox ko ñooñu mu ne wa yaqulu ida kaanu alamu bi mawdii shukri fi nus- fi nasri wal amni wa alam bi makyidihi fi lxarb mu ne bu fekkee ñooñ ñoo xam mbir mi lan lañ ci war a dogal ci mbirum jàmm kon war nañ ci war nañ cee xam ñooñu ba tey ci mbirum tiitaange bu fekkee mbir mu ñuy sant yàlla ñooñu war nañ xam naka la ñuy sante yàlla bu fekkee ci mbirum tiitaange la ñooñu war nañoo xam naka la ñuy muñee mu ne walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu cey bu doon du xéewal gu leen yàlla defal mbokk yi yàlla daf ñu may xéewal te yàlla xéewal yum ñu defal xéewal yi du jeex xéewal gu njëkk a rëy gu ñu yàlla njëkk a defal mooy mu def ñu ay nit walaw laa fadlullahi cey bu doon di xéewal yàlla ci yéen mbokk yi yéen ñi nekk ci jumaa ji kan ci yéen bi ko yàlla di bind dafa def demande ne ko def ma nit dangaa def benn lettre demande sama borom maa ngi def demande bi waaw bisu sàngam nga bind date bi bind heure bi lan mooy objet demande bi dama bëgg nga def ma nit ma dëkk Sénégal ah kan ci ñun moo def demande boobu yàlla moo ko neex mu def la nit bu neexoon yàlla mu def ñu ay rabu àll di wala ay xaraki béyki mbaam kon heure bi ñoo ngi ci naaj bi di yenu ay saaku di daw ci tali bi di ko koy koketi waaye yàlla moo ko neex mu def ñu nit beneen xéewal gu nu yàlla def kan ci ñun bi ko yàlla di def nit moo ko def demande ne ko def ma jullit de bu ma def nasaraan bu ma def yahud wala def ngeen demande ndax dama leen di laaj ndax defoon ngeen demande pour nekk jullit yàlla moo ko neex wala wala fadlullahi aleykum yàlla moo ko neex mu def jullit beneen bi ñu yàlla defee ay jullit mu boole ñoo ak ummatu muhammad ñu nekk kuntum xayra umma kon kay ñun war na noo sant yàlla wala tey yaa ngi ni wér yaa ngi ni woor ndax woor wooru leen woon fii daaw ak ay nit ñooñu tey ñu ngi àllaaxira xam naa ay nit yoo xam ne bu ma daan tafsir fii la ñuy toog buñ daan julli naafila dañuy ànd ak ñun buñ daan julli vendredi fii su ma taxawee ci minbar bi gis leen ñu toog ñooñu tey koor gi mu ngi leen fekk yowmal xiyaam ñu ngi àllaaxira te du ci kenn rek laa ci xam de ay ay ay ay ñun yàlla may nañu tey ñu ngi ni fekk woor nañ lenn ci weer wi ndax loolu du xéewal ñoo ngi ni dipp boobu yàlla ngi may wér yàlla may nu lu nuy ndogoo yàlla may nu lu nuy xëdd ndeysaan fan yi sama téléphone du noppalu ay nit yoo xam ne dañuy war ba ngoon du ñu am lu ñuy xëdde te waaye oustaz ñaanal ma mbokk yi ndimbal te dafa bëri ci nit ñi ñun na yàlla may nanu dañuy war ba ngoon am lu nu ndogoo démb ci mujj kenn ki sama kër la ndogoo war ba ngoon doo am loo ndogoo oustaz sama njaboot amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan sa yaram day daw sa rongoñ day génn jullit bu mel na yow nga gis ko ci mbedd mi muy dox nga yaakaar ne kii manqué lawul dara fekk mu ngeeg ay problème yu dul jeex te gars yi duñ ko yëgal seen yaram te yenent bi waxoon na boo amee benn tàndarma sax ba ngoon nga woor nga woor ba ngoon ngay dog séddal fi xaar ko ci digg bi nga jox sa mbokk il faut ñuy fàttaliku doomu aadama yi xam ngeen lu tax yàlla sant ñu koor instant yu nekk dañoo xiif wala dañoo suur da ngeen a xiif wala da ngeen a suur wala gars yi dañoo xiif ba mënuñoo wax dañoo xiif non baal yi tamit dañoo mënuñu wax sax ci kaw dañoo xiif dégguma dara da ngeen a xiif wala da ngeen a suur wala ba léegi baal yi jógul dañoo xiif gars yi dañuy taal sax wax voilà yàlla dafa bëgg nga ñam xiif gis nga xiif ni mu méttee pour ëllëg bu koor gi jeexee sa mbokk julli di nga dëkkal nga xam ne loxoom jotul ginnaawam nga xam ne xiif noonu la mel kon kii dee na ah on ki xiif nii la méttee man maa ngi lekk chaque jour di naan di màndi di di ah ndeke sama mbokk bi moom yenn saa yi dégg naa du añ yenn saa yi dégg naa du reer yenn saa yi dégg naa noonu lay toogee ñetti fan cin du tàkk këram ah kon de kii dee na man ma man maa woor tuuti rek bëgg a dee kii moom da cee dëkk koor gi du lekk lu dul koor du lekk pour nga mën koo dimbali loolu mooy yàlla ñamal ñu xiif pour ñu mën a dimbali ñeneen ñi ñi ci dëkk guddeeg bëccëg ah kon ndeke foog ñuy gestu doomu aadama yi même boo yore dërëm nga bokkoog nit ñi boo yore dërëm nga bokkoog nit ñi li nu am nan ko bokk ak suñuy mbokk mbokk yi sa dàll yooyu den kaa indi fii
baax na de jumaa jam nay séeréer de
baax na de baax na foofu kon baax na séeréer yi baal leen ma de da leen di tooñ rek samay kal ngeen mbokk yi borom bi ne walaw la fadlullahi alaykum ay waay bu doon du xéewal yi leen yàlla defal wa rahmatuhu ak yërmandeem yàlla dafa sotti ci ñun ay ay xéewal walangaan wallahi su fekkoon ne xéewal yi yàlla wàcc nit ñi nangu nañ koo bokk xoolal géej la fa nekk pour xéewal pour kan la yëpp pour doomu aadama la xoolal àll bi li fi nekk ci meññeef pour kan la pour doomu aadama xoolal suuf si xoolal asamaan li fiy wàcc ci xéewal lépp pour doomu aadama la waaye doomu aadama yi ñoo mënta ñoo mënta bokk xéewal gi yàlla wàcc milliard milliard ku ko am ñaata ngay dunde par jour moo tax jullit jullit du am milliard jullit du am milliard de xam naa gars yi nañu waa kii lu muy wax nii mu denc ay juróom ak juróom-ñett.
jullit du am milliard aywa ñu dem lu tax jullit du am milliard milliard ku ko am nga dund ñaata at du jeex cent ans ndax nit dina dund cent ans
bokkam du am njëriñ.
dama leen di laaj ndax nit dina dund cent ans ah ah voilà moo tax yàlla du la may loo xam ne da nga fekk cent ans alal ji la yàlla jox nga ci génne azak di ci dimbali nit ñi du mat milliard nga dëkk nga dëkk ak ay nit ñu ne la laysa minna man baata sabaan wa jaaruhu jaaya bokkul ci ñun ku fanaanoo dépasse suba fekk ay dëkkandoom dañoo xiif bokkul ci ñun ndax di nga nekk milliardaire yonent bi muy génn àdduna lan la bàyyi juróom benni dërëm mu xam ximmili ko Aysa ne ko mu ne Aysa lu des ci kër gi mu ne ko juróom benni dërëm mu ne ko saraxe ko Aysa daan ne jaam bi denc ko ndax suba amaguñu lu ñu lekk yonent bi xëm ximmil ko waat ne Aysa mu ne juróom benni dërëm yi mu ne ko ah dañoo xam ne suba du mu ne ko laa ila yéen a mbokk Yusuf yéen nii rek ngeen mel lu ñu leen sant ngeen bañ ñu daal di jël loolu saraxe ko yonent bi muy génn àdduna yéreem bu mu doon sol bu mu doon géere yére bi mu ngi woon ñu tayle ndax bor yére bi dañ koo tayle yonent bi musta denc dërëm yonent daan toog weer cin du tàkk këram sallallahu alayhi wa sallam weer cin du tàkk këram déggu leen wax bi de loolu lu muy tekki lu muy tekki nga toog weer cin tàkkul sa kër te nga nekk borom kër am ay soxna am ay doom nga toog weer cin tàkkul ci kër gi ñu ne yonent loo doon dundee mu ne ñaar yu ñuul tàndarma ak ndox tàndarma ak ndox te mooy moom mooy gën gi mbindeef bal sax benn bis dafa tëdd nelaw munta nelaw ndax xiif mu nelaw nelaw nelaw nelaw munta nelaw mu jóg toppi mbedd mi dina di wér mu gis Aboubacar Aboubacar lu xew mu ne damaa xiif yonent bi ba mënumaa nelaw yi mu ne ko nan ànd ñoom ñaar ñu boot seeni loxo di dox ñu tourné gis Umar waaw sa waay lu xew ba nga ba heure bi tëdd ko waaye man daal loolu booy di wax damaa xoos yonent damaa xiif ah walal ñetti nit ñi gën ci lislaam xiif ba mënuñoo nelaw yonent na waaw kon nañ leen dem kër abul ayub al ansaari ñu ànd ñoom ñett ñu fëgg kër gi doom yi ubbi abu abu ayub al ansaari daal di ubbi wala heure bu- heure boobu ci guddi yonent ak sa ñaari saxaabaam yu mag yi mu lala leen ñu toog mu songu gétt bi yonent bi ne ko mooy tandikul bu ëmb ak buy nàmpal mooy tandikul bu ëmb ak buy nàmpal mu daal di jàng benn mu daal di jàpp benn tëng bu ndaw mbote bu ndaw mu daal di koy rendi ci guddi gi kenn yëgul ñu fees ko kenn yëgul ñu commencé saam di lakk yéen a waa këram ña ngay liggéey affaire bi kenn déggul bir wi morso bi ci njëkk a ñor biñ ko daggee jël ko indi ko teg ko ci kanam yonent bi yonent bi dagg ci morso bi def ci gémmiñam dagg dafa woo kenn ci doomi saxaaba boobu tudd a nu mu tuddati abu ayub ne ko demal ndeysaan ngeen jox ko Fatima weer a ngi nii lekkul yàpp dem leen ngeen jox Fatima weer a ngi nii lekkul yàpp weer a ngi nii lekkul yàpp gars yi ñun ñi ci jumaa ji kañ lañ gëj a lekk yàpp am na ñoo xam ne démb ci guddi am ñoo xam ne barki démb am ñoo xam ne ba léegi am na ñu ko xëdd am ñoo xam ne ba léegi mu kii de- desit gi mu ngi ci seen diggante ba ñi toog yonent bi ak doomam toog weer lekkuñu yàpp sallallahu alayhi wa sallam li garaaw ci reer boobu ñu tegal yonent bi mu lekk lekk lekk lekk lekk lekk lekk ba ci digg bi yonent bi daal di jooy ñaari sahaaba mi ne ko yaa rasulallah lu xew mu ne summa la tusalunna yawma izin anin naim yàlla dina leen laaj xéewalu tey gi xéewal gi yàlla defal leen reer bi ngeen reer yàpp bi ngeen lekk yàlla dina leen ko laaj yawmal xiyaam ci lan ngeen ko reesal waaw falawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu su fekkonte nu de xéewalu yàlla ak yërmandeem yërmande yàlla dafa sotteeku ci ñun wala ngaan kenn mënu koo natt billahi wallahi wa taalahi yërmande yàlla ci ñun kenn mënu ko natt gaa yi lim leen yërmande yàlla ci seen kaw tàmbali leen ci seen nopp ci yërmande yàlla ngeen di déggee xool leen seen bët yi ci yërmande yàlla ngeen di gisee xool leen li ñuy noyyi xool leen li ñuy wax xool leen li ñuy dox xool leen li lekk mu rees ci xéewal yàlla bokk ak yërmande yàlla def nu yërëm wallahi yàlla moo nu gën a yërëm sunuy ndey ak sunuy baay walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la tabaatumu seytaan di ngeen topp seytaane tey ñu bari ci ñun ñu ngi góorgóorlu ci diine ñoo ngi jóg di daanu di moytandiku lan moo leen dab fadlullahi wa rahmatuhu moo leen dab tey ba heure yii ñu toog yéen a ngi nii woor toog demu leen géej ci xale jigéen yi dàqtuwu leen koor ci stade yi ah nekku leen ñu bañ a woor di di laye dañoo feebar di laye dañuy joxe ndogu di laye nangam ak nangam xoole yéen a ngi woor di sàmmonte koor gi dem di déglu ci alquran su ngoonee ngeen ndogu ni leen yàlla sante dem songu jàkka yi julli naafila ñaan yàlla lu tax parce que yërmande yàlla la am na ñoo xam ne ba leen yàlla làqul ci xéewal googu ak yërma ngi topp nañ seytaane la tabaatumu seytaan te ku topp seytaane fan la seytaane di tey rek yow mooy safara xam ngeen yowmal xiyaam seytaane day def soirée day def pëjum ci biir jahannama yaa ngeen saar bi suuratu waaw ban saar la yàlla mu ne wa barazu lillahi wahidil qahar com gaa ñi jàkkaar nañoo ak yàlla seytaane daal di teg pëjumam ci kaw jahannama gaa yi commencé ay seytaane lépp yaa ngi ci dugal mu ne leen noppi leen ma kenn yedd yedd leen seen bopp man damaa woote ngeen ñëw forcé wu ma kenn dëgg la kan la seytaane forcé yor yatam ne la tey nga dee bul julli kan la seytaane yor yat ne la tey nga dem soirée seytaane dafa tëgg soirée bi rek ngeen ñëw seytaane ne forcé wu ma kenn yoruma yat dóoruma kenn harcelé wu ma kenn xoqatalu ma man damaa woote ngeen wuyu kon nag tey bu ma kenn yedd yedd leen seen bopp maa ngi leen di yëgal ne tey mun leen maa musal mënuma leen a musal maa ngi nañ leen ànd rek ñun ñëpp dugg biir jahannama fa qaala alcheytan lamma qudiya al amr inna allaha waadakum waada alxaq allahu akbar yàlla nee nag ba ñu ba ñu attee mbir mi nag boor a leer seytaane daal di jóg taxaw nag daal ne ah yàlla daal moo wax dëgg yàlla moo leen waxoon dëgg man ma wor leen ngeen bàyyi yàlla topp ma ma woote ngeen wuyu da ngay gis benn waay boo xam ne da doon dem julli ji naafila mu tourné dégg ndong ndong ndong ndong rek mu ne eh kuy tëgg fii tey ñi ko do- ñi mu doon àndal julli ji ñu ngi ne taxaw de naan mu ne non non non non gars yi ah dama dem xool dem na wuy ji seytaane bàyyi na li mu doon defi kat topp na seytaane noonu la noonu la soirée di feesee noonu la làmb ji di feesee noonu la caaxaanukaay yi di se di feesee walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu la tabaatum seytaan di ngeen topp seytaane illa qalilan lu dul lu néew ci yéen ñoo dul topp seytaane doomu aadama yu bëree bëri mbirum seytaane dafa crise seen bopp seytaane da leen a këf dafa bënn seen bakkan def ci buum jiitu di daw ñu topp ci képp koo xam ne ci ñun doo xeex ak sa bakkan doo mucc ci seytaane moo tax al imaamu bu séeri nee na bakkan moog liir buy nàmp ñoo yem an nafs ka tifli nee na xale niñ koy sarele ci soow ci ween liir buy nàmp su demee ba am deux ans wala mu nàmp un an et demi da ngay gis yaayam di ko feral dootul nàmpati guddi yu njëkk yi day fanaanoo jooy yenn saa yi sax nga gis liir bu jooy ba feebar ndax lan ndax ween biñ koy tere ah noonu la bakkan mel ku feralul sa bakkan rek bakkan bi daal lay def loolu ko neexul moo tax yàlla ne fa amma man taxa wa aasara alxayaata dunia fa inna aljahima waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa nahan nafsa gis nga nafsa ngoog képp ku ragal dajeeg yàlla ba mu poñe bakkan bi tere ko bànneex yi wa nahan nafsa anil hawa mu poñe bakkan bi tere ko bànneex yi fa innal jannata àjjana mooy këram fa innal jannata hiyal mawa waat bi gën a bëri ci alquran yàlla waat ko ci alquran ci suratu sams la nekk fa muy teere yàlla dafa ne qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha ca dëgg dëgg dëgg ñi texe mooy ñi setal seen bakkan ñi perte mooy ñi alak seen bopp kon mbokk jullit yi euh, lii mooy darsa tey noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñi njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh